jërë ngeen jëf mbokk internet Actubuzz TV jërë ngeen jëf ñu amati mbégte contentement bu baax a baax ñu ngi amati mbégte bu baax fekk si fi nga mooy Abdoulaye Diallo ah muy ah nit ku baax tamit di ñaan tamit ci réew mi yàlla fi yàlla def jàmm mais nag gars yi gi nga xam li nga xamante mooy sula mooy docteur Abdoulaye Diallo da koy bañ nag moom <laughs> mais nit la ko xamante ne tey ci côté lii nga xamante ne mooy ci côté liggéeyam ah car macha allah mu ci def ay preuve yoo xamante ne àdduna bi yëpp teg nañ seen i bët mais tey uniquement dañuy ñëw waxtaan ak moom parce que gis naa benn vidéo boo xam ne actuellement dafa viral ci àdduna bi ba ko ñu baree ci réew di ko challenge yi wala ñu bari di ko reprendre di TikTok vidéo bi mooy ci li nga xamante ne mooy ci côté Sonko ah docteur lay bàyyi nga nuyu xamante ne mooy ci waxtaanu Sonko tey tuuti après que ñu laal ci li nga ne mooy ci faj meeg yooyu et cetera ñu ngi lay nuyu. di la fay Aboubacry di nuyu sa di leen naan dal leen ak jàmm yéen samay boy ngeen samay xarit ngeen ñoo bokk lépp fii seen kër la yéen tamit fi ngeen nekk sama kër la may nuyu Diouf bu baax man dama laa xaw a koy gis ànd ah, mu naa xam nga maa la raw c'est vrai euh, léegi six mois mhm. noonu la xam nga Trop de communication tue la communication, ça c'est de man bëgguma sax def léegi ay vidéo mais problème bi boo gisee def vidéo rek ñu foog ne da ngaa faj. waaw ah, dañuy foog ne liggéey bi dafa arrêté. waaw ah, nit ñi dañoo bett tellement. Mhm. te xamuñu liggéey bi liggéey la boo xamante ne cabinet la boo sama cabinet la boo xamante ne même samay sët dañ koy doon parce que ci dëgg laa ko teg. waaw mhm. ah, lii patrimoine la c'est pas de liggéeyantu mm. nit ñi xam nañ ko déjà mm. bi ma dooree génn ñëpp dañu foog ne comme waxkat yële la rek man <laughs> man leen c'est différent <laughs> waaw bokkul kii dafa xam ni muy def mën li muy def mm. te déggu waaw man bi may def liggéey bi dama suur ba pare waaw man yàlla may na ma loo xamante ne tey rus naa di lekk dërëm bu lewut rus naa di fen nit waaw man xamatuma sax ni ñuy fenee nit waaw man moom <laughs> macha allah je suis à l'aise waaw sant naa yàlla bu baax desetuma dara lu de chaque trois mois ma dem ziyaare yeneen bi tawaaf ñëwaat waaw sama wàllu liggéey léegi su ma liggéey ba waxtu bi jot fu ñu ne allahu akbar teg naa dem naa julli ci waaw su ma paree ñëwaat gis nga léegi mm. léegi <laughs> dañoo na dama dem julli ci doog mm. doog doog leen faale waaw man c'est comme ça. gis dama jàkk dem ju liggéey ñëwaat c'est comme ça euh, bi ngeen ñëwee sànq du euh, fekk maa ngi ñëwaat euh, timis c'est comme ça foofu laa toll daal waaw maa ngi wax benn waay bu jógee France ñëw faju mm-hmm. <coughs> mu ne ma li ma foogoon ci yow yëpp gis naa ko. man dama foogoon ne hernie discale du wér. ñëw naa à moins deux mois jox nga ma garab ba maa ngi di ñibbi mm, am naa sañ-sañ di jëlaat euh, mauvaise haleine di jëlaat arthrose. Mm-hmm. sama jabar aussi commencé na garab yi mu foofu bi ma àggee bi ma jëlee garab yi yónni naa ko. Mm-hmm. sinusitam bi macha allah xam nga. Mm-hmm. mu ngi toog fii sax di woo jabar yi may dégg muy naan maa ngi fii ci sa xarit. waaw parce que ndeysaan jabaram nee na jabaram du tëdd guddi dégluwuma quoi. donc c'est une fierté une fierté nationale moo waral nag ma bëgg Sonko mu falu mhm. bu faloo au moins moom xam na dans son pays y a un produit waaw boo xam ne euh, richesse cachée la mhm. euh, dafa amoon benn émission bu nekk euh, bu ñu doon tourner RTS dans les années 80 bu tudd génie en herbe mhm. c'est moi le génie en herbe waaw bu ñëwee dina ma dina dina dina ma jàppale imposer sama médecine bi au monde entier mm-hmm. comme les chinois les japonais ont, ont la leur quoi voilà euh, xam nga lu mel ni hépatite B benn nit di ko faj ci àdduna diabète nit di ko faj ci àdduna hernie discale nerf sciatique arthrose mm-hmm. euh, maladie cardiaque nit war a opérer nga jox ko garab même pas quatre semaines mm-hmm. opération faussée nit war dem defi dialyse nga jox ko garab en douze semaine defatul dialyse nit am calcul nga jox ko garab benn yoon mu naan calcul rénal deñ xam nga nit am cholestérol ñu war ko jox benn comprimé à vie yow nga naan nga garab en douze semaines mu wér xam nga ñii am arthrose cervicale ñii am AVC xam nga nga ñëw faj leen ñii am colopathie li <laughs> gën a yomb faj ci samay garab colopathie moo gën a yomb faj xam nga eh, te tubaab lay naan régime à vie ah, ah. waaw hémorroïdes yi gars yi dañoo naan daflon ba bëgg dee xaw ma pomade daflon bi daf ko ñu pomadu ba bëgg a dee gisuñu dara yow nga faj ko en 15 jours xam nga sant quoi nga crier j'ai crié sur tous les murs l'État prenez-moi en compte xam nga mais ils ne m'ont pas écouté nee naa ba amenez vos agents de suivi nañ ñëw enquête xool li may def ils n'ont pas écouté alors qu'ils ont un plateau médical hyper faible hyper faible hyper faible hmm? ay prostate yi ngi ñuy dem di bënn xam nga am na benn waay bu fi ñëw sànq ci suba ndeysaan dañ ko doon def sonde ñu gaañ ko ñu dindi sonde bi oh la nuit bu pour mu saw problème la mu ñëw tey imagine quelqu'un dort ba nga yeew ba dix heures sawoo dama doon jooy barke Seydina Mohamed j'ai pleuré ce matin dama jooy dama yërëm waa ji dama ko yërëm ça fait mal dafa yàq sama journée ma ne ko yow bu ma yëgoon lii yaa njëkk dugg te tey j'ai commencé un peu en retard neuf heures quelque laa commencé xam nga nga war ko jox garab mu dem ba këram tàngal foofu doog a naan xam nga tous ce temps là deux heures de temps presque ko def fekk fekk sawul ma ne non ma xëcc benn kopp ndox jàng alxuraan tufli ci ma ko dugal ci du bi nga jëfandikoo ko moo ko ni mu koy defee rek ndeysaan waa ji toog saw saw saw normal mais premier saw bi ndeysaan da ngay dégg mu yuuxu oh. ça fait mal <sighs> xam nga obligé garab yi sax dama ko may après ma ne secrétaire bi jëlal ma benn kuddu garab bu fees dal nga tàngala ma ndox léegi léegi minimum que ça soit mu mu commencé naan xam nga nga gis yow ngay faj prostate sans toucher même la personne doo mm-hmm. sax laal tuubayam mm-hmm. mm. kooku sant la sant on a on va si détails yi ak développement yi incha allah mm-hmm. mm. ci ni nga doon rek laay ñëwaat ak yow ba léegi waxtaan yow tu léegi léegi ci li nga xamante ne mooy ci détenus yi nga xamante ne tey ñu ngi leen libéré depuis boobu ak léegi ak ci li nga xamante mooy ci Sonko mais da nga def benn vidéo boo xamante ah. bi àdduna bi ñëpp jot ci vidéo boobu lan la la da nga def benn bëgg Sonko xam nga après. Sonko ku ko buggul doo ko baax barke Seydina Mohamed Sonko Ousmane Sonko ku ko gis buggoo ko doo ko baax et j'assume ce que je Sonko yàllaa ko bëgg. Mhm. bu la yàlla bëggee nag ñëpp bëgg ku la bëggul rek iblis la te iblis bul foog ne benn jëmm la rek nit yi ñooy iblis. ku buggul Sonko maa ko wax man mi jàllu saaga ma ndey wax mu la neex iblis nga te ma xamal la benn affaire Sonko boo daxoon léegi ne Pastef def naa ko tarika tarika bu ma nekkoon xamal ne ñàkk nga ma tarika Sonko lay jël barke rasulillah Sonko imaam la Sonko dafa mën alxuraan Sonko jullit la Sonko royukaay la Sonko bëgg Seydina Muhammad Sonko sunnit la mm-hmm. Sonko jullit la Sonko du lekk lu lawul mm-hmm. Sonko boo ko naree jox dërëm mu ne la fu mu jógee <laughs> man ki ma jox tariika su ma su ma ma ko indilee cent mille du laaj fan la jóge <laughs> di laaj sax ndax may naa sama yaay cent Sonko bi ma bëggee keroog yóbbu këram cinq cent mille Cheikh Bara ku ko bëgg la nag Cheikh Bara c'est un modèle Cheikh Bara nit ñi dañ ko xamul rek mu ne ma boo ñooy xaalis di jël jëndal ration nga yóbbu fa ma ne ko baax bàyyi naa ko sa loxo doomu ndey noo defee baax na yaay man maa yow mm-hmm. hmm, sama famille laa yóbbu ma ne jox leen Cheikh man du ma joxoon rek parce que benn lañu mu ngi man maay moom kooku du ma yëkk dara non sama poche mooy poche kooku xam nga du mënuma jël loxo dinaa nii déedéet. Mm. Cheikh Bara ku la ci man barke Seydina Mohamed est-ce que xam nga bi mu nekkee prison laa xam këram ma dem këram ni Cheikh Talif laa woo ma ne ko yóbbu ma kër Cheikh Bara oh. bi mu nekkee prison yéeg ne dem naa fa hmm. da doon jooy de joie bi mu génnee ma dem nuyu ko mu ne xaw ma ne sax xam nga ma hmm. billaay xaw ma ne xam nga ma mu teral ma parfum bee moo ko may ku may parfum nag di nga xul ak man waaye bii moom dinaa ko utiliser te duñu xuloo incha allah mu may ma montre bu cher may ma déodorant li ma gën a bëgg parfum montre ah eh, man nit mënu maa may sax lu ma saf mais boobu saf na ma Sonko. Mm-hmm. xam nga dama gis gars yi temps yi depuis deux jours yi ñuy naan gassa gassa yi devenu massa massa xaw ma. Mm. yaa ngi koy gis. an sama téléphone. Mm-hmm. Sonko deful lu mu waxul. Mm-hmm. xaw ma jëful dara lu wuute ci li muy wax. gis nga vidéo bi Sonko mu ngi ne déglu ko. léegi ngeen ne kii di waliw lii bi mu koy wax. boobu duggagul sax. mu xalaat xoolal ma lii te Sonko def gis nga nit ñi am dégg-dégg ñoo mën a déglu Sonko. Sonko avertir nit ñi de dem prison. Mm-hmm. natt bi. wax na ko fi muy naan a si nnaas an yatruku an yaqulu amanna wahum la yaftanuun génn na aay boobu benn jour. Mm-hmm. signalé nit ñi kii waliw la Sonko du nit. man bugguma sax di wax ci jëmmi ji ñu toroxal ko toroxal njabootam gaze ko fekk ko ci biir otam toj ko histoire de mœurs légère doo gis mukk politicien di ci dugg président yëpp am ay gel président yi ñëpp am gel laa wax j'assume ce que mais doo mës a diw di naan génn nag diw wala benn président di ko tàkkal keneen mm-hmm. ñuy jël xale bu jigéen bu salte tiiñal ko Sonko ci ay fen waaye Sonko boo tëddoon ak cinquante mille jigéen mm-hmm. ñu foto la taatu nen bëgg nañ la man yaay sama sëriñ maa maa tey gëm la maa tey bëgg la Sonko bu dee sama bëggal bëggal ak yow daf may dugal safara yàlla naa naa nekk centre ci safara si sama yoon new ci bu dee su ma la toppee li ma defoon ci lu baax ci àdduna yëpp danga koy ñàkk yàlla naa ko ñàkk sama yoon new ci maa tey bëgg la jeex na xam nga nee nañu gassa gassa nangam nangam nekk ba léegi gas gassa gassa bi la gassa gassa bi moo waral recul du troisième mandat gatsa gatsa bi moo waral assemblée nationale di voté ay loi président ne date nangam la ñuy defaat mu ñàkk am loolu kay <laughs> loolu loolu loolu loolu c'est un déshonneur total lii mooy défaite gatsa gas bi réussirul yéen léegi nag ngeen di wax doo leen noppi ngeen jël ngeen yor pouvoir bi yëpp ñu leen di recul loo Sonkoy gor biñ yónnee nit ci moom prison pour mu négocier xam la la wax man mun naa des ci kaso bi mais les détenus politiques là libéré leen sama premier d'abord boo leen bëggee waxtaan ak man libéré les détenus loolu loolu mooy li ngay gis ni question bi nga posé bi tontu naa la <laughs> Sonko tey la waroon génn du génn xam man am na journaliste sama xarit journaliste yëpp dem leen Kër Sonko teeru ji ko mm-hmm. xam nga nee naa laa jox du génn tey xam nga lu tax mm-hmm. c' était prévu même Pape Alé na euh, ci statut am mm-hmm. vingt xam nga lu tax xam nga lu tey dafa am ay détenus yu mu yu mu imposé il faut ñu génn. suba 12 bu ñu génnul ma moom day des ci prison bi kii mooy gor. Sonko ku ko yeb rek xamal ne moo la gën gën sa baay boo ko yebee dangaa yeb ku mën sa ndey mën sa baay mën la ci lépp nag ci diine ci tey ci yar ci personnalité. ci charisme raw la ci yàlla dégg nga wala déggoo ma man xam nga Sonko bu nekkee président ça ne m'arrange pas moi parce que mën na yow ne suñu médecine bi na fay impôt parce que ñun ay sëriñ lañu di presque mhm. suñu médecine bi bokkul ci constitution sax mhm. hein mhm. c'est même pas reconnu par l'État xam nga boobu moom moom quelque chose qui n'est pas reconnu sax ñu ko laaj impôt mais dina pexe léegi léegi parce que impôt rek la xam fu mu jaar utal ma pexe pour ma fay impôt sëriñ ñii di ñaan ñàppay fay impôt kii bu nekkee président loolu kay xam naa ko mais est-ce que c'est mon intérêt lay lay xool wala intérêt réew mi ni muy aare suñu pétrole bi lay xool ni muy aare suñu gaz bi lay xool ni muy aare suñu ressources yi. moom man loolu laay xool ci Sonko nu muy wàññee ministre yi nu muy wàññee train de vie de l'État man loolu laay xool nu muy dindee pauvreté bi noonu laay xool nu muy jàppalee xëyu ndaw ñi man foofu laay xoolee. nu muy jox nu muy indiwaatee suñu indépendance parce que nag on n'est pas encore indépendant hein dépendant. <laughs> comprendre nga ni mu defee ni on est on est il y a toujours de la France. ni mu dindee mais mise boobu moo tax ma bëgg ko et je crois lui di neewoon nañu dafa bañ France dem lañ ci vidéo yi encore fi mu toog monument de la Renaissance mi présente libre wax na lu leer nee na moom bañul France mais dafa bëgg indépendance mënuñ ak accaparer lépp ñu jox leen suñuy ah, wax na ci contrat pétrolier yi wax na ci lu leer kenn weddiwu ko mm-hmm. bokk na ji ñu bari ah, ah. moo ah. tout ce qu'on en cachette sur nos dos di piller suñuy ressource Macky Sall nag a bien fait il a beaucoup réussi eh. moom moo ne woon bu nekkoon président Mali mii nga xam ne essence am fii lay jógee moo ñu gën a moins essence ah hmm. amul benn raison que Mali di ñu gën a yombale essence il a bien réussi parce que le litre d'essence aujourd'hui à 990 xaw ma 995 bravo monsieur le président ci a gagné. ñaw teel célibataire gën a bëri bravo et cetera et cetera Macky kay réussir na. réussir daa réussir. man de ba léegi gisuma li ñuy inauguré Fouta hmm? <laughs> xanaa benn daara euh, benn daara alxuraan kanel <laughs> bu abu basam bi boobu de gis naa ñu dagg riba bi <laughs> te xaw ma sax ku ko tabax boobu de gis naa am ku jël ciseau di dagg gisaguma leneen lu ñu dagg riba bu ñu dagg Fouta ci ne doog bandum boobu moom ñun yëguñu ko. ok bala fi may tëjee ay yow nag tuuti damay ñëwaat ak yow ci ci mbirum li nga xamante mooy ci côté feebar ak ci côté médecine bi nga xamante ne tey yàlla suñu borom may na la ko ma tëjee ak yow foofu mooy ci li nga xamante ne mooy dama ne lan la boobu ak léegi état di xaar ci Diallo pour nga liggéey ak ñoom parce que bari na tey yeneen réew yoo xamante ne xam nañ la parce que des fois ñun dañuy jot ay appels yoo xamante ne ñu jógee ci àdduna bi ah boolema ak dafa faj kii. dama feebar dama bëgg docteur Diallo faj ma ñun ñu xam ko ci yow. maa ngi xel ne boole ma nee dama euh, dama am benn xarit bu ma bu la bëgg xam na nga am est-ce que gis ngeen du ma leen sax tontu. waaw du ma leen sax waxale. gis nañ mhm. benn femme daf xaw ma lan ma ne ko <laughs> ma foog ne journaliste ma mu ne ma xaw ma commerce lay def Burkina ñi ñi ñi ñi ñi ba foofu laa yemalee waxtaan bi. laa yemalee waxtaan bi <laughs> boo bëggee xam na xam bi. na wër adresse bi boo bëggee xam hôpital principal nooy def nit ñi dañoo yebaate ko mais débrouillez-vous à connaître l'adresse man damaa neexal nit ñi ci li may def man nee naa neexaluma kenn ku mu neex nga ñëw faj ku mu naqari nga toog forcé wuma kenn waaye fii Carrefour la boo demee ba sonn ba ñu nax la da nga lekk sa xaalis ba ñu lekk sa xaalis ba nga dem ci tubaab bi mun mënuñ la faj mm. di nga mujjee ci docteur Diallo force mu neex la mu naqari la fii moom yii bi maa ci teg mes mais est-ce comme li am mooy diw ma boole ak yow docteur ah, Abu Ba moo boole ak kii xam ma rusee ko Abu ma recevoir ko faj ko. gis ko ne elle est quoi mu ne ma elle est commerçante elle était à Burkina xaw ma gis nga de. Mm-hmm. mu dee qu'il voulait rencontrer. faalewu ma ko après nag mu gis sama statut mu ne ma kii Sonko ma ne ko wuy hmm? faalewu ma ko sax ci loolu parce que dafa gis ma def eh, benn statut quoi ci ci Sonko mu ne benn nit rek laa wax nag mu ne c'est kii Sonko ma ne ko woy léegi nag c'est une belle question te boo xoolee répondre naa la ci début bi. nee naa la bu bu Sonko ñëwee. comme dafay booster notre notre notre potentiel. Mm-hmm. dina xam ne que y a quelqu'un qui s'appelle Abdoulaye Diallo qui fait de mm-hmm. buy faj lu mot quatre-vingt-six jàngoro. Mm-hmm. boo xam ne il est très efficace. di doflo tubaab yi. dina ma permettre man ma am sama pharmacie herbale dina ma permettre man ma am vue de l'extérieur parce que man man da foog ne man war naa dem ci TFM wala ci Sen TV wala ci 2STV hmm. di ñaan émission man ñoom ñoo war a ñëw ci man ils ont droit à hmm. man du ma dem ci télé dina ñaan njekk pour ñu pour ñu wane ma fay leen jamais de la vie nañ ma xaar. man ñàkkuma jom de di fay ay télé ay 500000 nii pour pour génn pour pour pour lan au nom de quoi. waa ITV seen TV yéen laay waxal TFM xaar leen ma yéen a war a ñëw et incha allah di ngeen ñëw vous allez avoir besoin de moi man maa wax. ils auront besoin de moi billaay wax. <laughs> baax na man je suis pas mouton pisser tabaski arrive. <laughs> <laughs> Euh, euh, li xaj ci euh, li Nobel bi ñëwee. dañuy dañuy xam ne am na lu xew. am na lu xew. billahi médecine bi àdduna tey médecine. maa ci teg sama loxo néew ma nag maa dàq fa jàll néew ma li ma xam kenn xamu ko de mais xam naa ne médecine moom. Mm. xam nga li gën a jafe ci àdduna. Mm. barke. waaw mm. ah, ah, man dama am barke. suuf sax su ma la ko joxee yàlla barkeel ko. te ñaan naa yàlla képp ku dul wér yàlla bu ñu jëflante yàlla bu mu ñëw sax sama kër loolu rek laa bëgg parce que ma yàlla lekk lu lewut du ma ñëw yi nga xamante ne dangay ñëw seen buntu kër ñooy naan jindal sarax nga saraxe ay fayal ticket 10 000 ay fayal ticket 5 000 de duulkat dóorkat yu bande con yooyu ces imbéciles la di naan seen bopp ay sëriñ lañu ah dee naan sarax yàpp demal xoolal rek yàlla yàpp nga def ko sa yaram ci muy tuutonkoor nga fanaan noonu après nga sànni yàpp bi ci poubelle yow sëriñ bu la waxee loolu doo ñaf ndeem <laughs> loolu sarax la yëfu kon yooyu walla verser du sang fu mu yàlla ku set la yàlla ku bóo la mm. allahu jamilun yuhibbul jamaal yàlla dafa rafet bëgg lu rafet ah, ay sarax gerte ay sarax euh, fas ay sarax nag ay sarax xar ay sarax mbaam ay sarax mbaam xuux ay sarax euh, picc yooyu nekk pale euh, am kii lépp lañ aw jàmm xaw ma lan ay sarax jesner sëriñ di laaj xar président nag ne laadum <laughs> xoolal ma doorkat yu bon yi sa sa sarax xar la waaye laadum lay doon imbécile xaram ba pare nag sarax yaa ko war a defal sa bopp mais ils vont tout faire pour nga indi sarax bi seen kër di duul jërëjëf ñooñu bu Sonko ñëwee na ma jox brigade spéciale ñoom ñëpp laa génn dëkk bi Sonko na naa la Sonko Sonko Sonko nam naa la man moom xam naa bu ma doon woykat euh. sa waa kër dañ xiif parce que baat bi neexut <laughs> <laughs>